Euh, danaa leen bégale tam ne ci euh, concours xale yi ci alxuraan bi ci ci këru ga euh, jox nañ ci diplôme loolu nekk na ma rek lañ ko jox man ak yéen ñëpp ñoo ko bokk diplôme baa nga ne ci yaakaar naa ne président moo ko jële woon mais bi ko biñ ko jëlee sax waxoon nañ ko ne taxawal ñu photo la wala ñu video la parce que dafa nekk lu rëy diplomate franc nekk lu tuuti te tànn nañ ci jigéen yi kenn muy man ñu jox ma ko te jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye Radiya Taala tax diplôme baa ngi ne la sénat li mën nga koo génn ngoon ko njaboot gi ndax ñi gis ko rek na sant yàlla dégg nga nga damay dem rek mu jox ma ci kanam njaboot geeg comme beeg dogal ma ebal suñ président muy maam Saliou mu dem teewal ñu fa ci teewaay bu rafet ak bu yar ak teggin moo ñoom ñoo ñu teewaloon ci invitation boobu nga xam ne invité woon nañ ma ko man ak suma njaboot yëpp nag. bi ko ko joxee tam bi mu génnee rek la ma woo téléphone na ma jox nañ la diplôme léegi damay laañ ndax ma indil la ko ndax ma bàyyi ba suba ma indil la ko booba guddi na ma ne ko déedéet diplôme bu bàyyee ko ci baay du fanaan kenn lu du suma néeg indil ma ko mu xelu ñëw indil ma ko. kon eh, eh, maa yéen a ko bokk wax nañ ma ne diplôme bi man lañ ko dara jaale maanaam man lañ ko jox ci jigéen ci fii ci kawlax te loolu nekk na loo xam ne nekkul lu ndaw loolu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu ci lim def ci njabootam gi rek moom la moom la ñuy wéyal ñoom moom moom la ñuy saxalal parce que ku mel ni Cheikh Abdou bu yëkkatee ki diplôme di ñu ko jox du man rek la ko jox man ak yéen ñëpp ñoo bokk jox na ko waa Kaolack yëpp ak waa àddina bi yëpp ak faydu bi yëpp yëpp ci diplôme bi lañ bokk ndax diplôme bi nekkul diplôme bu ndaw kii souvenir la mais nekk na bonheur maanaam nekk na lu màgg ci yàlla parce que loo xam ne ci alxuraan lañ la ko jox ci guddi alxuraan la ko jox ci njogante alxuraan la ko jox lañ la ko joxee loolu nekkul lu tuuti kon man ak yéen ñoo bokk diplôme bi te lay na ne ñoo ko bokk moo di ne li ngeen taxawaay bi ngeen taxaw ci weeru koor bi ren moo waral rek gis nga yàlla ni mu programme jagleen ñu diplôme bi man ak yéen ñoo ko bokk. bu doon médaille itam maag yéen a ko bokk comme ni ma ko waxee woon buy Màkka maa yéen la buy Fass maa yéen buy Medina maa yéen la buy Taïba maa yéen la buy Koosi maa yéen la moo tax ma ne nañ leen woon diplôme ba pare soog a wéyal jotaay bi.